waaw loolu tamit loolu tamit dëgg la ren xaru yar ñoo fi takku amaana tamit situation dëkk bi xaw na seen joué peut être ni ñu doon amee xaru pël yi ak malien yi ni ñu doon ñëwee ràññee ko la bu baax a baax mais ne ne teewul tamit xar am na ba léegi parce que gars yi yar nañ en masse bëri na xar trop. ñu gis ne tamit euh, ngooñ beeg di pàcc bi yéen a ngi koy jël parce que li ngeen dafa cher loolu lan ngeen koy dundee te ba léegi ñaay tamit ñëw ñu am nañ doon waaw. lii bi xont bi moom yàgg nañ kaa déclaré parce que chaque année ñu wax ne xont bi day augmenté année bi su nekkee onze mille beneen année douze mille cinq cent lay doon chaque année day augmenté loolu moo tamit day influencé si prix xari moo tax toujours prix xari di yokk ñu gis xari moom cher na moom ñëpp a ngi doon xari cher na non du ma wax sax xari cher na parce que xam nga ñun dañuy jëm si jaayaat mhm. boo da nga si jéem a dàq dara loolu nga si ñu ngi siy teg sax du bëri mais comme que xar li ñu koy jëndee tamit day xaw a cher moo tax mais xar yi nekkul suñu la cher li ñu koy jëndee la cher parce que ñun dañ koy jënd benn mois deux mois ñëw di ci dàqaat dara waaw loo tax xar yi ñu ñu gis tamit client yi ñëw buñ am nañ doon xool ay ceeb ay benn benn nga fi gis est euh, dëkk bi moo amul xaalis wala nan la fa doon waaw ah, mën na dem tamit si ñaari côté yëpp mën nañu wax dëkk bi amul xaalis mais tamit ak fen mois bi ñu xawee sori nii peut-être ndax Tabaski bi côté fin du mois bi lay lay tombeel peut-être yi dañuy xaar ba fayee ko ñu ñëw mm. mais en tout cas client ñi leen xaar ba léegi mais ñëw guñu en masse quoi pour tabaski bu daaw euh, moo gën a tane que bu ren nii ñu ngi xaar par rapport ak njaaykat njaay mi xaar waaw bu daaw moo tane parce que daaw tabaski bu desee presque une semaine mm-hmm. boo xoolee liñ jaayoon ci xaar ak ren xaw na am différence différence daaw lañ ëppoon luñ jaay ba tabaski bi desee semaine waaw te ren tabaski bi des na semaine ba léegi client yi wàcce ñu amiin amiin yàlla ñuy ñaan merci beaucoup ok merci Omar Cissé la ñu gën koo xam ci Papa Cissé avant tout dañuy nuyu mbokk internet di nuyu ñëpp ñu seetaan di nuyu waa Sénégal yëpp di terminus Liberté 5 di nuyu éleveur sama mbokk yi fi nekk yëpp de passage di nuyu sama grand ñu koy wax Silla euh, xarit rafet yi maanaam terminus ñëpp xam nañ ko donc di ko ziar bu baax a baax a baax bon jëndu mbeeg jaay moom pour le dafa calme quoi franchement. ñu gis ne tamit euh, xar yi ñu war a indoon xar yi ñun léegi Mali dugg si wuñu ñu gis yaa ñu ëpp naan Sénégal léegi ñëppay yar ah. léegi ñëppay yar moo tax xaru yar moom foo dem da ko fay fekk ba tax na pël yi dañ doon ñëw Maliens yi ñëw euh, naar yi ñëw mais boo xoolee comme ni ñu daan ñëwee léegi ñëweetuñ noonu. peut-être métti métti ah. ak jafe-jafe jamono la ak yu mel noonu moom moo tax baax mais am nañ yaakaar tamit ci kanam incha allah dinañ ñëw mais heure bii moom la waaw mënu ma ne tamit loolu mën na def na ci impact quoi parce que boo xoolee tabaski moom ñëpp a koy def te loolu yaakaar naa ni warul mën a def impact ba xamante ne nii tey war nañoo mën a toog seen dëkk maanaam bañ a ñëw fii quoi parce que fii boo fi ñëwee di nga jaay te boo am loo yóbbaale pour man loolu warul mën a impacter quoi ba tax ñoom ñu toog foofu ak seen i ay jur quoi parce que day métti trop quoi buñ ko defee rek day métti trop gis ne tamit euh, fii moom lépp a cher ah boo waxee ripaas di nga wax. Euh, di wax ngooñ mhm. boo waxee ngooñ di nga wax ripaas mali ripaas di nga wax mbokk bi mhm. loo wax di nga wax leneen donc lépp a mhm. donc euh, lenn daal la ñuy wax euh, suñu président bu ñu mënee jàppale ci ah. franchement ñu gars yi xool daal na ñuy wàññee xont bi daal dinañu dinañu arrange parce que métti na trop ah métti na trop xar yi moom boo xoolee li ngay li ngay def ci xar yi mënoo ko mënul mënul mënul nekk quoi mënoo ko mënul nekk lenn moo ñuy dimbali parce que xaalis bi dajaloo la et loolu rek mooy avantage mais sinon xar yi li nga ciy def boo xoolee xar yi gétt gi xar yi ni ñu mel ak li ñu def si xar yi di nga xam ni carrément xar yi def liggéey nañ ci ñoom et puis li war ci ñoom def nañu ci donc li nga xamante ni def nañ ko ci xar yi dëgg mënuñu ko cee waaw loolu def na ko marché moom wax dëgg yàlla heure bii moom daaw fii mu ngi jax ku nekk di diri buum ku nekk di xëcc gauche droite mais nii nii nii moom par benn benn ngay gis ñu lay romb waaw mais nag yàlla baax na ko am nañ yaakaar yàlla def xéwal ak sutura waaw bon client yi moom à tout mën nañ ñëw waaw xam nga client moom doo xam kañ lay ñëw ak kañ lay dem waaw à tout moment mën nañu ñëw donc ñun dañuy ñaan rek yàlla defal ñu sutura ba lépp li nga xamante ni def nañ ko ci rek mu barkeel daal ak keneen ak keneen. waaw di leen di leen kontaanee di leen dégg allahumma amin ñu bokk lépp ngeen jëf allez merci. Fallou waaw fu ñu toll nii euh, naa xaru yar yi kenn ku nekk xam ne moo ëpp si dëkk bi Maliens yi daan nañ ñëw euh, jogali tamit daan nañ ñëw mais fu ñu toll nii wàccaguñ yi fi nekk xaw naa cher nag mais prix yi fi nekk xaw naa raisonnable man jël naa xar mais prix mu am tamit baax na. cherul lool ci yow. non cherul cherul. waaw gis nañ ñu ne xar yi dafa cher dépense bu cher nag nit ñi ñëw ñëw ba léegi client yi ñëw waaw meeru laa ñu doon. léegi maanaam affaire bi daal macha waaw ça va non ci ci xar bi xar euh, day dépendre ci xar mu toll quoi en fait léegi su nekkee xar bi mag na prix bi da ngay xool lu mu méngoo ak bi rek nga jëndee ko mais pas cher yenn cher yi quoi nga rek mais prix mu am man moom raisonnable. ok waaw <laughs> mënut a ñàkk jërëjëf waay yaa ngi jëf. nuyu naa tur beeg tey fii ci Liberté 5 mi ngi jaay ko xar danga a wax ak tabaski bi. waaw yi ñu ngi fii depuis xaar client moom premier moment xaar koo gis na aussi xar yar yi ñoo ëpp parce que man prestation yi xaw a jàll ñu gis ni xar dafa xaw a manqué nan ngeen mën a wax. waaw xar yar moom génn nañu parce que léegi xam nga jeunes yu Dakar yi ñëpp a yar moo tax ñëpp a génne seen xar bon pël yi ak euh, maliens yi ñoom ñoo ñëwagul biir Dakar parce que ak rumeur yi circulé ne président dafa war a wax dimanche loolu moo gën a tax aussi egsi wuñu parce que mun ñu tëb rek egsi te xamul ñu muy mujje loolu moo waral xaru toggal yeeg gisoo leen fii xaru yare rek ngay gis ñu moom xaru yar yëpp Dakar lañ dëkk hmm. il paraît que sax xar ñu ngi campé ay Sandiara ay Touba Toul fa yi des parce que gars yi ñi moom ñu gis ne tamit euh, xar yar yi dafa cher trop parce que bu ko wax ñu ne ripaas bi dafa cher nan ngeen di dundee bu cher bi te client yi aussi ñëwaguñu xam nga aussi moom ak lu mu cher cher cher ku nekk xam nga nekk sa poos xaru mu nekk nekk xaru yar xar am na cent soixante quinze mille jëm kaw mu ngi dépendre si nga bëgg mais par exemple xaru bu jar cinq cent mille yore benn deux cent cinquante mille loolu mooy waral souvent seer mais ku nekk li sa poche boo bëggee xar moom boo yoree cent soixante quinze jëm kaw di nga am xaru bu baax parce que coogal rek cent cinquante mille lay jar jamono ju toll nii xar yi seer na d'accord bon ripaas bi seer na xont bu métti na mais ku nekk le peu bi nga amee mun nga si am xar noonu la demee. clients yi tamit euh, war nañoo ñëw jënd xar yi clients yi tamit boobu ba léegi clients yi ñëwaguñu foo dem ñu ne clients yi ñëwaguñu clients yi lan la ñuy xaar ne ko xar yee cher. non du xar yee cher clients yi xaalis lañ yoragul ba pare am na clients yoo xam ne dañuy bàyyi ba mu des wala semaine mhm. ñu door a ñëw jënd parce que fi ñu dëkkee la appartement amuñu def xar souvent da ngay gis client bu jënd xar sax comme actuellement fii gerte gi am na fi ay xar yoo xam ne mooy pendu seen béjjën yëpp jar nañu mais seen client mënuñu ko yóbbu il faut ñu xaar bàyyi la xont bi léegi buñ tasee buñ leen subal tabaski si guddi gi ñoo jël si ko noonu lay demee. Euh, ñu ngi lay jaajëfal di la remercier bu baax a baax. waaw mais le plaisir est partagé kontaan nañu trop. yàlla xar yi rek jàmm. yéen tamit yàlla na ngeen affaire bi tey gën a amélioré xam nga chaque année ngeen di ñëw di ñu interview xam nga yàlla mën na ko te dina ko def incha allah merci alhamdulilah ok sant bi. la. Abbas lii tey gis la nga nekk ñu ngi indi waajal tabaski bi ak jaaykatu ak jaay xar jaay tabaski bi nan lañ koy dundee comme ni ko ñëpp ñu ngi ci xar client yi aussi ñëw na client yi la ñuy xaar

repasse bu cher la ko jël ay nekk ak wàll tolloo ak moom dina cher ci yow mais am na ñeneen ñoo xam ne du cher ci ñu je pense que àdduna noonu la ko yàlla bindee nekk nag boo ñëwee boo jëlee sa wàll je na eh, gis naa sa xarit daa mel ne man ay euh, li ma ëpp li may jaay mooy les géniteurs là nga xam ne ay jiw laay jaay par rapport ak euh, éleveurs yi bu ñëwee bëgg jiw dañ leen di ay ay mooy defaral la am mensuration am wér nga xam ne pour améliorer seen santé maanaam su ma déggee yow doo jaay pour ak ñi ay baadoole yi wala ñi nga xamante ni ay néew doole non du question baadoole wala néew lu doole c'est-à-dire que man semence laay jaay actuellement comme xam nga jiw laay jaay mooy ñi am xar yu jigéen bëgg comme géniteur ñu ñëwee boo bokkul ak xar yi nga xam ne xaru tabax si parce que question la baadoolo ñàkk baadoolo quoi dañuy jaay loo xam ne bëgg nga jiw nag boo ñëwee bu ñu waxtaanee bu ñu juboo nga jóg yéen aussi ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal am di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu barke liggéey yi yokk leen aussi amiin yaa rabbi incha allah. pare am naa nag may jox xaru un million yoo ma yóbbu ko suñu biir. waaw bu fekkee am nga ay xaru jigéen yooyu yaa. <laughs> merci beaucoup. allez je vous en prie. ok merci.